sant yalla rek xamne bal euh man masla jambu rek lay wut may tay dama bëgg wax ak rew mi wax ak borom rew mi euh, man nak so gisee ma ñame wax ak borom rew mi defaluma dara nak suma defalon dara ñu ne ma xeyna xeyna bo baye xeyna bo waxe mu dakk la mais man am boss am boss ma suñ borom la yor ak yonent mais man soo gisee ma koy wax ak moom en tant que frère na xoolaat boppam bu baax ñoo koy nax te ñoo koy indil ay jafe-jafe waaw ñoo koy nax ñoo koy indil ay jafe-jafe ci biir réew mi da tey soo xoolee jeunesse bi yëpp dañoo mer balaa maa dee ñuy jël alal di naan dañuy mitin nañ wutal xale yi ñu am liggéey man yàlla moo tax may wax sama gàmm gii lu mu rëy rëy gis ngeen ay kër diine dong nga fi ne kon ñepp la sékkal kër Serigne Touba kër Seydi Hadji malik kër mam omar ndak kilifa diiné yi man ñom la amal affaire man bu may politique yi ñom la japp man may seen man may seen candidat mais ñun kenn mënu ñona réew mi bu muy bu mu bëggé yaq réew bu galak kilifa diiné yee ko kilifa diiné yee ko réglé Serigne tiwa won kaulak talen ñu ñoo réglé réew mi kon Sénégal kenn mënu dem bay kër kilifa diiné soo gisee ma di ko wax dama bañ ëlëk ñu indi ko jafé jafé ci nak ko lañ jëm ndax ñu mu nekkal ko fal dootoo ko gis soo koy téléphone dootoo ko dégg bo ñëwé garde corps bi né la mm, wo ko ba pare ñu dafu ñu ñun ku ñu yëg ñu yëg la man nak dama ko bëgg man mak sal dama ko bëgg su ko ñëpp doon bayyi man duma ko bàyyi defaluma dara nak jëluñu sama doom mu liggéey mais suñu jëlé ay doomu jaamu ñu liggéey mel nañ jël nañ samay doom xam nga lu ma la ndax kees aussi nu ñuy doxee ñun ci wàllu politique baaxul fal na fi fal na fi day ramatulaay ñu dem ba ci biir ñu wàcce ko ñu dem ñu amoon yaakaar ci ndey tikke ñoo ñu amoon yaakaar ci ci ndey tikke ñu xëy wàcce ko waxuma lu mu lu mu lu mu jox euh, Yankuba Diattara man kontaanuma ci euh, euh, kontaan naa ci kontaan naa ci ndax sa ma woon mais buñ ko dindee ci poste bi nañ ko jox beneen poste liñ ko jox ba ñu ma ko mais ñun dafa am en tant que chef religieux dafa am lu ñu doon liggéey ci ci réew mi lu ñu liggéey ci réew mi man day jot jotuma ko sax téléphone yàlla ñu ti gis leen fi sax nitam fii sama jàng yi gis na fi benn nitam bu ñëw man yàlla rek a tax may wax xam nga lu ma la kees dem na ba yàqu mu jël docteur Ndiaye samp ko docteur Ndiaye ñëpp ànd sampam ndax nit ko baax la ñëpp ko nangu om social la xam nga lu ma wax docteur ñëpp nangu ko baax la jabaram dama leen di nettali benn affaire bu reetaandu am ku fekk soxnaam toog mu ne ma leen jarul nga fi toogati ah na léegi jabaru ministre ma leen ne ko ana folleeku ba mu folleekoo ëllëg fan laay toogati est-ce que am naa sañ dañ di fi toog xam nga lu ma la aduna ñu def dañu xam de yàlla rek mooy joxe yàlla rek ay joxe nguur te xale yaa ngi chemin man neexuma booy Isaaka moo ngi kër Muso man maa jël affaire am yóbbu defalu ma ko sama doom de ñu yóbbu ko ba ba ba ba ARTP ba léegi tontu wuñu sax lijjanti wuñu sax koo fal mu fàtte booy Birane Seck cene ba Malick Dieng dañoo nekkoon ci Mimi Touré mais dama gëm ne Idrissa yëgul loolu bu ko Idrissa yéegoon dina leen jëlaat da Idrissa du fekk nitu APR di ko génne toujours nañu xool ñi ko wër makki na xool li ko wër na xool li ko wër maire bu mel ni Talla Sylla jafe na Ousseynou Diouf gis ngeen keroog ay jafe-jafe fii ñëpp ko gis ñëpp gis ay jafe-jafe Ousseynou Diouf Ablaye Dieye man maa ko décoré ndax yaroom ak nitéem Thiès tey lu muy def ci kees amul benn mouvement bu koy def am na ñoo xam ne dañoo bëgg jël mumbaay di ko dunde maa di ko naxe nii ñi mais loolu mun ta nekk Thiès nag di ma leen di wax benn affaire bu leer kenn du fi teg ay ay ay yoo xam ne ñun comprendre nañu maire bu fi teg te comprendre ma su ma jógee dina ànd ak samay nit ma xeex la te am naa ko am naa doole ji gis ngeen ko billaahi am naa doole ji li ma fi dajale ñoom mënuñu koo dajale am na ñoo xam ne tey ñoom fi politique li ma fi dajale kenn ci ñoom mënu koo dajale fii man sama gàmbu ginaaw yalla bu baxé ñi nga xamné yalla ak yonent bi la eh, Mor Gueye sopp na ma defal mu def ma def lepp wali fay Mbour mo né defal ma def lepp xam nga lu balax man sama gamu ñooñu ñoo ko defar xam nga lu balax man dama leen di wax rek ah, ay boy wali saw ñoo ngi ni wali saw bayina na sam ben jarbat ousseyni Diallo mo ngi do day waja bayyi ñoo ngi doon di wote assemblée générale APR koo fal bu ëllëgee mu mu kii mu mu kii di war a téléphone man kooku xoolal man Augustin jàmm laa ko yéene. xam nga lu ma la wax man Augustin bu woote woon fii du ma dem jàmm dong laa ko yéene nag yàlla na ko yàlla defal jàmm. moom moo yor man loolu man man xëy na mais man daal xam naa ne. xam naa ne kees moom doxul. kees moom buñ bëggoon mu dox. dana jóge ci loxo yu mu nekk. Siré Dia tey lu mu def kees Siré Dia jëlul ma benn nit. yàlla moo tax soo waxee ñu naan non daa jël ay doomam samay doom ak nii dawal jakarta mais si rajo tey lu mu def kees man la ko defal ah jël na ay nit ñu liggéey ay xale wàññi chauffeur yi mais ñu daaneel ko jox nañ ko PCA PCA baax na mën nañu jox kees koo xam ne dina jël xale yi ñu liggéey xam nga lu mala ku mel ni ku mel ni tey euh, meeru taset bi ku baax la du Njëng Abdou Njëng Abdou Njëng bu cene ba kenn gënu ko man yàlla tax may moo tax may wax su ma demee Mbour Cheikh Issa Sall doomu aadama gën ko man na xam naa ne APR fu ma jëm ak ñoom fu ma jëm ak ñoom moom mënuma la wax de Macky de du ma ko bàyyi mais ndox du fa des ndax xam naa ne daal man kontaanuma ci ñoom dak man awma man ma suma ci am biee ma mosuma ci am lenn mosuñu ma defal lenn gis nga sama gàmbu ngi sax gis leen fi ay nit gis leen fi benn nitu APR kon xam nañu man du ñu mën a ànd ak man fen xam nga lu ma la Maodo Malick Mbaye sama xarit la benn man mu maayi ñooy sama jaboot ba yow Babacar Pascal yoon ñoom ñoom Malay Diop ñoom Abib Niang xam nga lu ma ñoom Cheikh Ndoye man ñii ñooy sama jaboot xam nga lu ma la ma Samba man ñii ñooy sama jaboot xam nga lu ma la docteur sama frère Adja Ndeye Tické sama jigéen la ndax man lu ma gën a méttee ci addina mooy dafa am liggéey bu ñu entamé woon ñu wàcce ko te comme daanaka lépp day dem day xabaan moom suurat géej la jëm liñ ko jox nag baax na mais nag kees nañu président dimbale ci kees su bëggee téye kees na ñu falal nit ñu baax ñu yoreen ñu kees ku mel ni docteur Ndiaye bu ko falee na wut keneen ku mel ni moom mu jox leen mu jox ñu ay directeur waaso waaw waaso waaso nekk jullite ko gën nekk waaso waaso mooy lan soo baax soo diisee deret te sa xol baaxul lu muy jariñ soo diisee soo diisee deret te dekkati riba wa lu muy jariñ loolu ay ay ay faux problème la te ñun yërëm xale yi yore jakarta yi di dawal sonn nañ lool man Macky Sall laa bugg a waxal man sama frère la jàmm dong la ko yéene yàlla na ko yàlla defal jàmm yàlla defal ko sutura man suma ma sañoon day am ndam ba faw soxnaam nu mu mel fii ci amul benn doomu soxna président bu ko mos a am soxnaam am oyof na dit la day sol ay carax dem ci nit ñu oyofal boppam xalaat na ëllëg nit ñi bu ñu xalaatee bàmmeel yu bari duñ ko def koo fal fàtte nga directeur yu bari da leen war a teggi da leen a war a teggi teg fi ay nit yu taaw moo gën ñu doxal réew mi xale yi yëpp mer man xale yi sama kër so ñëwee ba 3 heures du matin da ngay fekk xale yi ñoo ngi toog bi di wax xale boo dégg du sax sax di campagnal mag ko ñu ne père dem waa dem ñun daal da ngay waaru ay joom Maodo booy nekk ay yéen sirax ah ay ay ay ay ay ay ay booy fat kara nga xam ne dem ba am mës mënoo am liggéey mais loolu ñaaw na ah naa ñaaw na nañ nañu xoolaat ki na xool entourage am xool ñu mu def ci pale bi bu jaree raxas mu raxasaat xam nga lu ma la xam nga lu ma la di di di di gërëm koo gis Thiès koo gis fii moo ngi def lu baax ah ñun man dama bëgg daal yàlla defal ñu jàmm man nag en personne man docteur sama frère la kenn mënuñoo boole ci àddina ndey tikke ba illaa yow mi diini jàmm la ñu seq moom la ñu continuer xam nga lu ma la joo sila sama jigéen la man ñëpp samay xarit la ñu politique kenn du ma wutal doo ci biir politique man kenn du ma dee bàyyi di jàppal di man kenn du ma ko defal ci àddina xam nga ma la xam naa yàlla moo yore wërsëg te fu ko neex la ko jëlee dégg nga yàlla moo yore wërsëg fu ko neex la ko jëlee man ñëpp samay xarit lañu maa ngi gërëm Maodo Malick bay ak personnalité ak fulam ak fayda yal na ko yàlla defal jàmm defal ko sutura sama gàmmu ngi ni gis ngeen ni mel kilifa diine yi nag Sénégal yëpp a fi daje kon nga xam ne xool bu rafet réglé nite moo ma ko jox alhamdulilah rabbil alamin